Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Euh, monsieur le ministre des Transports, maa lay nuyu monsieur le ministre des Finances M. le ministre du Travail M. le directeur général du budget M. nuyu collaborateur collaborateurs yi ngeen àndal le ak général euh, général yi toog Yep, yëpp maa ngi nuyu ku collègues députés yi nekk fii ci salle bi yëpp euh, monsieur le ministre euh, ma lay féliciter rek ci son excellence confiance yi mu am ci yow ba tegaat la ci boppu ministère bu am solo bi nga xamné dafa bok ci li développer dëkk bi euh monsieur le ministre euh pour ñu wàññi tamit euh, accident de la route yi monsieur le ministre il faut que ñu relancer les chemins de fer manam le transport de masse ndax euh, ci loolu sax dama ciy profité may saluer les efforts du président Macky Sall euh, pour la réhabilitation de la ligne Dakar Tamba à hauteur de 3 milliards loolu monsieur le ministre ñu ngi koy rafetlu di ko xaar te xam naa ne ci ay fan yu néew léegi yooyu sotti monsieur le ministre Olof Njaay dafa wax nit bu la defalee lu baax danga koy gërëm ndax dañu amoon maanaam ay jafe-jafe ci ay yoon yu métti biir Thiès ñu boole ñoog lu mel ni maanaam Promoville programme président boobu Promoville ñu gis liñ fa réaliser ci chantier yu am solo maanaam 13 kilomètres de voirie sur une enveloppe de 6 milliards réaliser nañ ko foofu maanaam lépp pare na yoon yi yépp vraiment monsieur le ministre loolu population thiessoise yëpp ñu ngi la ci remercier di la féliciter tamit di la wax nga waxal ñu son excellence contane nañ ci ville Thiès ndax dafa ñëwoon wax ko fofu ñu né li promesse électorale rek la te tey vraiment satisfaire ngeen ko yow nga ñëw def liguey bobu tamit FERA tamit mi ngi def liguey bu am solo biir euh gis nañu tamit bo duggé ci commune ci département bi ci lu melni commune de Ngoundiane def na fa liggéey bu am solo nga wàccaat ba ci commune de fandene bu def taxawaay bu am solo ba bir Thiès ville aussi tamit FERA def na fa liggéey bu am solo en collaboration avec euh, la mairie de la ville de Thiès ba créer nañ fof pratiquement ci lu toll ci 250 emplois lolu monsieur le ministre dañ koy rafetlu bu baax a baax euh, xanaa leen rek pour agent yi liguey ci FERA buñ len leen di équiper pour ñu mën len di len gëna identifier lolu tamit day gëna yombal liguey bi sama collègue bi wacc fi légui wax nako manam maanaam le paiement tardif des salaires tamit loolu tamit ñing ngi ci solliciter bu baax remercier Ageroute féliciter len ci liguey bu am solo bi ñuy def ci l'élargissement euh, sortie autoroute bu Thiès bi ñing fay def liguey bu am solo ndax loolu dafa doon poser problème embouteillage bu métti da daan am biir Thiès vraiment gis nañu ñing ci def liguey bu am solo ci lu tollu ci 6 km loolu dañ koy rafetlu bu baaxa baaxa baax baax monsieur le ministre gis nañu euh, taux d'accident mortel yi fi am yep gis nañ né bo xolé presque 700 morts par an loolu dafa bari monsieur le ministre ñukay déplorer mais bo xolé ci accident yoyu mën na né 45 ci accident yoyu nekul manam problème yoon yi nekul tamit souvent problème auto yi mais da fay lié tamit ci suñu comportement ñun chauffeur yi ak euh, des fois problème alcool bi. te monsieur le ministre gis nañ fi 13e législature bi ñu voté fi won code de la route bu bees bi. ci code de la bu bees boobu tamit ñu gis ci réforme yu bokk si contrôle de l'alcoolémie maanaam des chauffeurs loolu ñu koy rafetlu di ñaan tamit loolu tamit bala ñu ciy jublu tamit nga def ci ay concertation ak ñooñu ñi secteur bi mu concerné yépp ndax ñu gën leen ci mën a sensibiliser yaakaar naa ne loolu tamit dina bokk ci li gën a wàññi taux accident yooyu euh, monsieur le ministre ñu gis euh, tamit Euh, société yi tamit dañuy ñëw fekk ñu defar yoon yi ba ñu baax ñu ñëw di liggéey dem dàjj ko te bu ñu paree dañu koy ñab ñabalaat rek ak goudron loolu souvent day yàq liggéey bu baree bari su tawee rek nga gis yoon yooyu yëpp day daal di yàqu loolu ñu lay ñaan rek bu ngeen ci mënee defaat ay jàngat ak ñoom ak ay taxawaay ba ku ci dajjeeti tali rek defaraat ko na nga ko fekke woon loolu tamit bokk na ci lii gën a yàq tali yi voilà loolu laa amoon ci lu ma indi maa ngi leen leen sant.